bi yéen a kaay gi ne na bëri na ay réew yoo xam ne ñoom daal nañuy signé ne ànduñu ci benn yoon yéen a kaay gi di Les Échos xëy dañu xibaara naan ñu Souleymane Téliko mi nga xam ne moo jiite magistrat yu Sénégal ab mandaam jeex na jamono ji gars yi ñoo ngi wër a anakan moo jiite union des magistrats yu Sénégal journal bi xëy yokku ci ne journaliste bi dama jëmal jaaña dafa porte plainte Souleymane ko waaye na ngir ñu jox Téliko li nga xam ne mooy plainte bi jafe na lool ki nga xam ne mooy ma jëmbal jaañe ka avocat ma ndax gars yi wër nañu Souleymane Téliko ba sonn gars yi wër nañu ko ndakaaru gisuñu ko gars yi wër nañu ko Thiès gisuñu ko yéen kaay gi di Le Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy faatu Thiès mbir mi ma ngi yokk waaye nag ñi nga xam ne ñoo nekk ca diiwaanu Mbuur ñoom jamono ji jaaxle nañu lool ndax diiwaanu Mbuur ñoom amuñu centre de traitement des épidémies journal bi de la Témoin nee na hôpital bu Mbuur jamono ji ñoo ngi cab grève journal bi di Source A xëy dañu xibaar naan ñu clinique privée yi xaw na ñoo rey ñi nga xam ne ñooy askan wi amee coronavirus ak oxygène bi nga xam ne moom lañ leen doon jaay yéen kaay gi bi jël na ay matukaay ci armée Bel-Air ak Almeru Saint Lazare nee ñi nga xam ne ñooy denc néew yi léegi bu ñu passé ñaar fukki nit ak juróom te nag bu ñu demee ci armel yi maanaam fanweeri minute ñu génn armel ya yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu docteur Babacar Niang mi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr moo ko porté woon plainte ca kanamu brigade de recherche journal bi nee na ab certificat médical ñaar fukki fan la docteur Babacar Niang mujjee wane journal bi di libération nee na docteur Babacar Niang ca mujjantal ga daal dinay wuyu ñi nga xam ne ñooy gendarme yi yéenekaay gi di direct news ñu xëy fekk fa professeur El Hadji Niam mi nga xam ne mooy chef de service radiologie bu hôpital Aristide Dantec nee na gars yi nañu ko convoqué waaye nag détournement am na ci li nga xam ne mooy matériel public bi yéenekaay gi de La Tribune xëy duñu xibaar naan ñu OFNAC di créer conseil économique social environnemental di au conseil des collectivités territoriales institution yi daal maanaam ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards lañ say dugal te seen njariñ ci boppam xam ne jamono law ci réew mi te ma ngi sonal lool ñi nga xam ne ñoo ko amee bi nee na mooy nerf sciatique yéen a kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu am na ab rapport boo xam ne wane na ne ay njuuj njaaj ay magu yu am na ci indemnisation yu train express régional yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na ci kaso bu Bakel dafa am ab détenu boo xam ne dafa ñàkk bakkanam ñi nga xam ne nag ñooy xeex a ak yelleefu doomu aadama ñoom nag nee nañu jamono ji li ñuy sàkko moo ñu ubbi cab enquête yéen a kaay gi di vox populi société civile bi jamono ji ñoom nag danañu saisir ñi nga xam ne ñooy waa cour suprême bande filao yi nga xam ne Macky Sall moo joxe ndigal ngir ñu dogot dogatoo ko ca géej waay ñoom nee nañu loole du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg ndax ay nit ñoo jëkk bëgg dund ci ndoddul askan wi yéen kaay gi di Sud xëy ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ak primo votant yi journal bi nee na ab consensus la ci gaay yi sumbu jamono ci yéen kaay gi dee sat xëy duñu xibaar naan ñu Mohamed Jibril Wade jamono ji wutu na Saer Seck ci a li